Maguette euh, Wade maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. Maguette Wade nga nekk njiital mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement Sénégal rek nekk allié bu parti Pastef les patriotes déjà naka nga gisee fitna bi nga xam ne am na ci campagne électorale bi euh, mu nekk situation bu doy waar bu fekkente ni président Diomaye euh, dànkaafu woon na parti politique yeeg coalition yi avant ñuy démarrer campagne bi fitna bi mi ngi fi noo ko gisee. waaw fitna bi nag bettuma euh, ndaxte lu am rek nuyoo woon na dañ koy fayul xam nga ñun suñu espace politique bi léegi dafa am ñu si bokk ñoo xam ne xamuñ ne léegi liñ daan def démb mënatoo la muy cette variante UPSPS violence nangu xaalis yi Sénégal yi noot leen jaay leen doole loolu xew ne mënatu la ne euh, ministre de l'intérieur aussi dès le début de la campagne boo xoolee convoi des fois sax da nga doon am jeune da nga naan ñii buñ demee ñan la ñuy waxal ku ci nekk dana yore trente bras quarante bras nga xam ne kon waroon nañ dès le début ku convoi romb rek danañ gis la présence très forte des des forces de défense et de sécurité loolu dana tax ñu désamorcer la chose euh, nervi yi ñuy topp kër les les les convois mais la police doit les interpeller war a yore paaka war a ci campagne mais dañuy bàyyi ba xeex gaañ nit ñi deux fois trois fois ñu commencé nag génne di jàpp luñ def nii démb bu ñu ko defoon dès le début kenn du gaañu booy gouverner da ngay óor xam ne ah ñii ma yore kat ak wax yi ñuy wax xeex mën na fee surtout que euh, le président Diomaye Ousmane bi ñëwee ils ont pardonné ils n'ont mais de l'autre côté jàppuñ Ousmane adversaire te nit ñi dañ ko def te yàlla defal leen ko li mu koy defal mais nit nag boo bëggee nekk ci champ politique bi pour xëccoo jàpp na yow ay ennemi nga am mais comprendre la mooy démocratie ak li muy tekki te bu fekkee ne yow sax jox nañ la dëkk depuis mi neuf cent soixante yéen a fi nekk xiifal dëkk bi solal dëkk bi li rapport yi di wane xam nga ne moom amul ku leen di votel ku leen votel di ñitewoo te xam nga ne lii bal si démb gorom bi mujjee wax xam nga ne ku ko déglu da nga xam ne ñii ñëw ñëw pour defar Sénégal mais yàq Sénégal la leen taxoon a jóg loolu nag dafay jeex donc violence bi nag je koy dindi li si des sax bëritul convoyé ba ñuy waaye boo ñëwee dem ci fief yi jàmbur coow ngay andi donk nag l'autorité dañ ko sentirul ndaxte kii fi ne li juboo ko li gens ko moo tax je dañu waxoon man suñu moo ñu ne bu ñu ko amoon dañu lu ñu gënal El mën na koo nekk wala ñu jox ko Bilal ndaxte dëkk kat boo ko gañee yow yaay dawal ñun yàggaguñ niveau bi gars yi bëgg ñu nekk fa te démocratie yàggaguñ boobu suñ ko defee rek juum ndax ñun yar gi teggin bi yàggaguñ fa dictature éclairée hmm. moom laa mës a gëm moo tax ma jàpp ne ñi yàq xaalis yi dëkk bi pasar pasaree ko tey dañu waroon a jël ñooñu yëpp ut benn tribunal militaire mu jugé leen nit ñu liggéey ci carence économique bi loolu laa gëmoon ndaxte dëkk yu mag yëpp plus de dix millions ko jot na dañ lay figé fii nag moo tax boo génnee ci mbedd mi gis ñëpp dañoo sonn ñu boo feebaree doo faju boo bëggee jàngi doo jàngi voilà le Sénégal bi nga xam ne. Mm-hmm. moom la fi Macky Sall bàyyi. moo tax violence yi mënuñu ñàkk. mais mais mais responsabilité wu leaderu Pastef ci fitna bi parce que gis nga discours bi nga xam ne tenir na ko démb ñu bari ñu ngi koy ñaawlu parce que c'est un premier ministre du Sénégal euh, di woote fitna responsabilité wu Ousmane Sonko par rapport à ce qui se passe noo gisee. waaw ah. xam nga tey ku sañoon fitna du am mais ñay yee fitna buñ koy def droit de l'homme ci fu ñu nekk xam nga Sénégal li tax mu métti da ngay nekk di tooñ di def yëfi dof kenn du wax dara bu nit ki taxawee nag bu ko fay ñu warul waxee nii warul toogee nii loolu loolu mooy moo moo moo tax Sénégal ñu métti parce que ñun dañu am problème ak dëggu le problème au Sénégal nit ñi dañoo dëgguwul kii tooñ dañuy gis ne mi ngi tooñ yàq buñ ko wax dara boo taxawee fayu ñu ne waraloo fay te dina nangu na nga fay autorité tooñ bañ la tooñ mais loolu taxul la jóg askan askan il faut que buñ buggee defar Sénégal lii ñu normal nekk dans le champ politique ñu jël suñu énergie yi nga xam ne dañ ko def ci ay xeex dóorante jaasi jël ko def ko benn énergie buñ ko defee Sénégal ak justice ak justice Sénégal dana jëm ci kanam dana dox malheureusement dafa am ñoo xam ne ba léegi nanguwuñ ne changement am na li amoon démb jël alali askan di si noos di si gundaandaat di la si doose te mu nekk alali askan bi loolu nag la Ousmane dagg ñu mënuñoo bëgg Ousmane nangul nañ leen ko waaye nag violence bi moom dafa war a dakk te dina dakk te yoon ci boppam moom moo ko defar dinaa la jox benn exemple waaw mhm. waa kër Trump bi ñuy màbbu di dem ci capital bi lu ko waral lu ko waral parce que jàpp nañ ne tooñ kon tooñ nañ ko bugg ko wunni suturam bugg ko wax xool tey télé yu bëri te des médias des tribunaux médiatiques huit heures bu midi Ousmane rek la ñuy xas xanaa Ousmane du nit mais humainement c'est inacceptable humainement c'est inacceptable lan moo tax tey nag ñu koy xas nag ak quatre vingt dix pour cent wax du ñaaw baaxul ak quatre vingt dix pour cent waruñ ko xas. Mm-hmm. léegi nag. Sénégal moo moo dëppoo noo xam ne comme problème mu dëggu daa am da ngay tooñ di tooñ booy ñëw fay nag ñu war a wax mais li gën daal ba gën qu'il faut qu'on ait de la retenue il faut opposition comme pouvoir ñëpp nañ am de la retenue l'État na rétablir l'ordre su boobaa jàmm dina na dina man daal noonu laa ko gisee. Mm-hmm. beneen ponk aussi di wàllum transhumance parce que dañu xam ne euh, dañu gis ne ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bi mu nekkee ci euh, opposition bi daan na ñaawlu trop li ñuy wax euh, transhumance maanaam ñiy mabdee ci bi jëm ci pouvoir bi ñu gis ne nag ci campagne électoral bi contraire bi lañu gis ak Pastef parce que ñu bari ñu ngi jóge ci opposition bi dem di soutenir Pastef ci élection yi donc mu nekk loo xam ni xaaruñ ko woon si Pastef lan moo koy expliquer mbir moomu tey jii Pastef di accepter transhumance bi nga xam ne daf ko doon bañ démb. Euh, mais ils n'ont pas de carte de Pastef c'est des gens qui euh, xam nga tout de l'autre côté ne peut pas être mauvais il y a des gens ils de l'autre côté avec le défunt régime mosu ñoo sàcc mosu ñoo laal lu ñu war a laal kon ñooñu tey buñ ñëwee ne bokk nañ ci pour defar Sénégal. mais mënoo leen ndax parce que oowu leen jëliw leen mais moomul Sénégal Sénégal fi mu toll l'heure de la construction loolu moo tax su ma gisee ñeneen opposition di am yeneen façon yëngu daf may jaaxal parce que damaa jàpp ne Sénégal tey fi mu fa nekk sable d'opération ay doomam fu nekk foo mënti nekk sans coloration politique nga am xam-xam jub war ngaa ñëw dugal si loxo référentiel te duñ ko lu bees la mosu fee am yow moomu boo ñëwoon ne bu ngeen ko yokkee ci lii mu dagg ñu nangul la ko waaw dëkk nag bu tolloo foofu mais les gens doivent accepter le débat mais malheureusement on n'accepte pas le débat parce que ku ci nekk li ngay xool mooy nooy def ba falu naa def ba taxaw ci kanam même bu ñuy wax sax waxi ay ay waxi immunité parlementaire wax bi yàqu la immunité parlementaire dañ koy lever donc ça n'a pas mais li ngay gis rek mooy tey euh, transhumance beneen côté bi am na danger ndax boo xoolee avec le président Wade euh, am na ñoo xam ne mënuñ laa bañ a bañ bañ ba dem ba si yàgg ñëw bëgg la mënta ne wala nag il faut faire beaucoup attention avec ce ruée ñuy yem ci salon bi bañ a yegg ci chambre à bi waaw parce que euh, ki nga xam ne moom jàpp na ne noot nit rek mooy mooy moom mooy politique yow nga jàpp ne tu veux Sénégal prospère un Sénégal député mënul leen a ànd loolu moom te euh, leen ko fekk euh, le plus souvent euh, Sénégal en Afrique la politique dañ ko dénaturé ba nga xam ne ku si nekk ñu si ëpp même buñ leen namee sax da ngay jàpp nga naan yegg nga am nga sutura nangam nangam donc vision bi ñu am si la crise politique moo dañ ko dénaturé ba nga xam ne euh, ñoom confort la ñu tàmbu la ñuy wëndaalu rek te loolu amul njëriñ li am njëriñ pour askan bi nu ñu def ba génne ko sur le mal vivre coono bi ñu nekkee nu ñu def ba teel si gën daal moo mooy li gën donc ki nga xam ne nag nee na dafay ñëw ak xam-xamam mais c'est extraordinaire ñu ngi ko bàyyi mu joxe xam-xamam au travail baax na pour le Sénégal ñi nga xam ne nag c'est des postes waaye wax na ko su boobaa ah, waaye daal li am solo pour man mooy euh, nañ def le tout daal yoo xam ne daal la démocratie euh, dafa am contenu bu clair ay doomam dañ war di toog di waxtaan ci yu am solo yu yaatu yu ubbeeku waaye muy fexe muy nekk loo xam ne daal tey lu ma ko mën a a expliqué Ba ancien ministre euh, des finances du budget mu daal di faatu ñu jàpp ni nag loxo mi ngi ci gannaaw naka nga gisee mbir mi. waaw xam nga ne am ñu euh, ci lëndëm ah, mën a jaay engrais li ma ci gën a neex nag mooy procureur François wax suñ procureur te fële wax ak ci Sénégal la moo ci indépendant dinaa wax di enquête dinaa xool parce que sécurité bi donc waxee sa déclaration wax ne arrêté ak bor dañoo moo dañoo moo falsifié chiffre yi ah sécurité américain ah boobu nag xaw naa si ndaxte ñoom étali ñoom ñooy bras droit euh, capitalisme bi ci africain ñoom buñ sañoon duñu am dara kon ku mel noonu bu demee voyage moom moo la français demoon xaw ma Angleterre la demoon bu defee escale foog naa ne jabar waroon naa teel a yëgle na ci 27 bu caractère de la moom. daf rek gars yi lancé appel l'ambassadeur du Sénégal mën na dem xool mën na dem waaye yéex naa yéex yéex naa yëngu ci loola xool naa bokk na ci tax ñu woo ko di daal li am na mooy loolu la te daf may fàttali sax l'histoire de Cheikh Samba lancé département financier parce que kooku aussi moom moo feeñaloon waa Prodac moo demoon si Prodac xam nga donc moom it bu gaaw fi dee peut-être en fait dina mën a ñëw ci dans ay moyens techniques qui de déterrer certains mots ci fekk su xam na moo leen day quoi mais a demandé c'est très normal et c'est très naturel faut que le docteur Sow bu lay sorti tur bi te ne pare na maintenant ça reste l'abstention du président yëpp doo ci def su laajee mu ne fàtte nañ explique bi sa koy defaat waaye daal li ma ci jàngee mooy boo xoolee famille jabaram teel famille ba ak famille jabaram ña ngay bëggoo nekk su nekk réalité jàngat yoo ci def waaye àdduna daal yàlla kuy def kuy toog li jox laay bagage yow moomu def ci loolu yàlla sant ndaxte da lay topp ba sa bàmmeel bi nga xam ne daal def naa ko. kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax euh, Maguette Wade. deux fois deux deux yow yaay njiital mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement Sénégal rek euh, allié également du parti Pastef les patriotes merci Maguette Wade